متسلم يعرفنا بالله والله donc mbokk yi ñoo ngi fii dugg si ci diwaanu Danaab fii nag xam naa ne dina yëngatu lool Stop! Germany. Yana çıkar. Tanam, tanam. Tanam, tanam. Le président Ousmane Sonko à Tanaf. Le président Ousmane Sonko à Tanaf. extraordinaire gars extraordinaire le président accueilli en liesse populaire à Tanaf gars yi président Ngop donc mbokk yi ñoo ngi fii ci diwaanu Tanaf Ousmane Sonko di saafonte ak comme nee na ñu xaaral ko dem yoon wi gudu na sori na waaye ndaw yi mënuñoo ñàkk nekk bëgg naa jox loxo Ousmane Sonko. donc ñoo si fii ci tànnaaf patriote yi anda ànd ak seen leader Ousmane Sonko ñoo ngi fii secteur frontalier bu yéen a gis euh, un impressionnant dispositif de la gendarmerie waaye ñun ñoo ngi continuer suñu yoon gis ngeen mbooloo mi nekk ci kanam yëpp macha allah bëri nañu. c'est magnifique cet amour cette symbiose entre le président et sa jeunesse la jeunesse sénégalaise Aïda Mbodj ndax gis ngeen gars yi may nañ ko photo jox nañ ko photo boo xam ne moom ak laa lion bi bawol Aïda Mbodj xol seddati na xel dalati na mbëggeel feeñati na waaye espoir dooleeku na kii mooy Ousmane Sonko te xale moom la ñu bëgg moom la ñu moom la ñu bëgg mu nekk seen njiitu réew tagato agwata na Tanaff tagato agwata na ak waa Tanaff gis ngeen mbooloo mi mbooloo mi lol lol lool lool lool lool lool lool li dogal askan wi Sonko la ñu bëgg te mu jaar ñu wane ko xam ngeen mobilisation yi nga xam ne dafa spontané mobilisation yi nga xam ne xale yi dañuy dégg ne dinañ jaar bërëb sangam rek ñoom ñëpp ñu génn daje ci tali bi di ko xaar xam nga loolu nekkul ñëpp ko mën a am te képp ko yàlla may war nga ko sante suñu borom te xam ne sas bu rëy la président Ousmane Sonko ndawi Sénégal dañ la sas te moom xam na sas bi ngeen ko tegal moo tax ni ñaa jox addiye ba tay motax musul delu ginnaaw te du mësa delu dellu li c'est magnifique xool mboro mi kën du ko nettali c'est en live and direct fi moy Tànnaaf ñu ngi ci Ziguinchor wara a yegg ji inshallah Kolda et admirer ce beau paysage de la Casamance fi nek ni ñongi sur la moindre Casamance génn nañ Casamance. Sonko yi nii saa yoo ko bëggee donc addiya yaa ngi noonu te ñoo ngi génn Tanaff gars yi ma bàyyi la ngeen déglu muy wax parce que ñoo ñu ngi génn Tànnaaf waaye ñu dugg beneen dëkk ñu ngi dugg beneen dëkk te nit ñaa ngi taxaw di ñu xaaraat tamit. dans quelques minutes, histoire de vous redonner rendez-vous plus tard dans une autre étape. gàttal nañ ko mu dugg si te gunge nañ ko mu génn dellu incha allah ci yoon wi yoonu Kolda.